mbokk yi ñuy déglu di ñuy seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen euh, site 28 pro ñu dikkaat ak yéen ci benn euh, entretien bu ndaw rek ak euh, ki nga xam ne moom mooy sunu invité xam naa ne ci présentation bi jarut ñu ciy dikkaat parce que ñu bëri xam nañ ko ci département bu Mbacké muy Omar Ndiaye Angloma Omar Ndiaye Angloma maa ngi lay nuyu di la dalal ñu fas yéene ànd ak yow ci laaj ak tontu yi nga xam ne ni laal na ci actualité nationale bi. Sidi Mbaye daan maa ngi lay fay euh, man la Oumar Ndiaye Angloma membre bi ne bu président de la euh, maa ngi lay fay bu baax sii di di am mbégte contentement bu mag ci émission bi nga xamante ni nii dañ koy def en ligne euh, ci li ñuy njëkk nga ma njëkk a laaj mooy ci wàllu li xew au niveau national muy wàllu coow li nga xamante ni juddoo na ci wàllu list yi. Euh, ak ci wàllu euh, euh, parité bi ak ci wàllu parité bi ak ci wàllu parrainage bi donc ñu am mbégte contentement moom ñu man ci def ci ay quelques orientations am waxtaan ci waxtaan. waaw xam nga li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu liste bi ci conseil constitutionnel ak direction général des élections ñu dafa mel ne eh, ñoom ñaar ñëpp dañu dëggal. Euh, li nga xam ne moom mooy euh, décision bi jugee ci euh, ministère de l'intérieur loolu yow d'abord membre APR nga ci nga bokk ci nguur gi ngeen bokk yoon la wala yéen da ngeen a jàpp ne bu ngeen ko deful da ngeen a nar a lajj ci élection yi. waaw xam nga Sidi dafa am loo xamante ni nii Sénégalais yi dañ ciy juum par exemple Ousmane Sonko moo moo njëkk a wax ni. ñun suñu list baaxul moo ko njëkk a wax nañ vérifier information yi moom moo njëkk nii suñu list baaxul dañu def erreur moo ko wax parce que euh, euh, boo waxee loolu ba pare moom kon déjà moom moo njëkk a jox sax Cour suprême dëgg parce que moo ni dañu juub ñu jël cool yi xëpp ko Déthié Fall wëlbatikuwaat ni ñoom euh, dañuy bokk ci élection yi par force wa ilaa ñu taal réew mi may wax ni euh, Sénégal euh, il faut nit ñi delloo si waat seen xel yi di xalaat Ousmane Sonko li muy wax tey bu subaa ak waxi subaa du bokk moom moo njëkk ni liste bi dañ ci def erreur suñu liste baaxul moo ko njëkk wax ci affaire de liste Barthélémy Dias bi ñu jàppee ne maanaam Barthélémy Dias moom. ñoom xalifa ak yi ak gaa yi euh, xalifa yi dañ ko kompaloo pour bëgg ñu mu nekk député dëkk nekk maire nañ defar liste ba ñu tay tay lu def cee ñeneen pour yàq liste ba pourtant coow loolu waxuñ ko waxuñ ko parce que boobu loolu moom arrangé na leen mais bi ñu xoolee seen liste national xam ni liste nationale bi du dem élection ci liste national bi ci lañ répliqué wu di coow may wax nii Sénégal Sénégal la goo xam ni nit ñi ñu xam droit ñoo fi ne xam yoon Euh, cour suprême bi ñuy wax ak ñun direction séné générale de élection ak ministre de sëriñ bi ay corps lañ yoo xamante ni nii adduna bépp la respecté waxuma Sénégal adduna bépp la respecté ay intellectuel un niveau yu am xam-xam ñoom ñuy wax nii ñëpp kenn ku ci am xam-xam bu tolloo wook ñoom amul may wax ni kon nañu bàyyi seen yëfi caaxaan yooyu te mënuñoo fexe ba réeral xelum askan wi donc may wax ni euh, Antoine Diome mi ñuy wax. Antoine mi ñuy attaqué nii Antoine dafa war a démissionné xam nga ñoom dañu am problème Antoine bi muy nekk euh, ministre d' intérieur fonctionnaire la avant muy nekk ministre d' intérieur c' est euh, la boo xam procureur la boo xam au niveau am xam-xam di xale àdduna bépp respecté ko mu yor fi ay dossiers yoo xamante ni nii ñoom en biñ en Antoine du loolu de ay nit ñu dëgg ñu jubadi lañ donc en boobu lañ am ak lañ amal lañ am ak euh, euh, Antoine ñoom continuer en boobu indi ko ci politique bi mais euh, problème bi nga xamante nii moom moo ci nekk mooy am na loo xamante nii kenn du ko bàyyi mu càll ñoom bu fekkente ne nii dañu nii ñoom ñooñu mag ñooñu ëpp majorité as ñooñu ëpp électorat waaye nañ dem élection mais boo demee def sa njom beg juum bañ dàq sa liste nga ne liste bi ñu dàq dafa war a dem élection par force mais sëriñ bi yooyu waxi caaxaan na beneen bi mooy élection yi ñuy wax nangul nañ leen ñoo gañe dakaar dakaar buñ àndoon ñun euh, ñun ñëpp ñoom Mame Mbaye Niang liste parallèle yi génn buñ àndoon ñu liñ ñu leen di rawee sax euh, euh, nu mu soti fas mënu mënu mënu mënu ko dab donc boo demee itam dëkk yëpp dëkk yëpp noonu la demee léegi boo ñëwee itam ci Sénégal li ëpp ci ay maire ci Sénégal ñun ñoo ko gañe tey bu fekkoon te nii ci électorat maire yi rek la ñuy xool ñun mën nañoo dem tëdd nelaw xam ne am nañ majorité assemblée nationale ba pare kon nañ bàyyi seen caaxaan yi ñuy caaxaan Dakar ñaata député fi dakaar Dakar lu mu bari bari bari mënta passé sept député donc bu fekkente ni nii saa nangam euh, euh, euh, député nga ne yow sept député Dakar ak sept député Ziguinchor ak ya nga mën na laa jox nu mu tëti nga am nu mu tëti majorité assemblée nationale mooy waxi caaxaan ngay wax. waxi caaxaan ngay wax te bu ñu jaawalee que ni élection locale élection présidentielle élection député benn élection bokku ci ak sa morom élection locale nit ñi ñooy jongantee ay localité la Angloma bu ko neexee mu ni candidat laay doon même président bu tànnoon candidat bu ko bu ko neexee mu ni man candidat lay doon nekk candidat euh, boo gisee liste parallèle yooyu ñoo bari mais ñi nekkoon ay candidat tam ñi ci ñi ci ëpp ñëpp APR lañu bokk ñooñu bu fekkente ni nii tànnaan nañ ay liste député liste parallèle yooyu rallye yooyu ànd ak ànd ak liste ba sëriñ bi mënoo wax ba gañe ba gañe leen beneen bi mooy président Macky Sall bilan ak taxawaayam ci réew mi ak Sénégal yi fi ñu ko teg ak ni muy déroulé politique gu Sénégal ak ni fi mu euh, sànce yi mu def ci réew mi damaa wax ni Sénégal boo bu wal jooja njaay Sénégal gu ab du Diouf Sénégal gu Senghor Sénégal gu Ablaye Wade Sénégal gi nga xamante ni ay ay dignitaire dañu xeex ba réew mi am indépendance am tam euh, démocratie boo xam ni adduna bépp ko daw mais loolu kenn du ko yàq man damaa jàpp ni man Angloma man bu fekkoonte ni bokkuma affaire sax du ma politicien président de la boo xamante ni nii li muy liggéey ci réew mi ñëpp a ngi koy gis mu tegu ci yoon nga ni man bëgguma président boobu mu am majorité assemblée nationale kooku ku la jox réew mi réew mi suba nga yàq ko ñoom ñoo ñu yor nekk ci opposition bi man tey ku ci nekkoon ci pouvoir jiite réew mi soxla majorité assemblée nationale dama lay wooteel pour que nekk nga am nga am majorité assemblée boo amul majorité nationale doo mën a liggéey doo mën a liggéey doo mën a liggéey dëkk bi mi ngi mel ni rek nga ni euh, euh, un maire ñu ni conseil municipal ba budget bu ñu wootee conseil ba bañ mais bu yàggee dëkk ba dëkk dëkk dëkk ba yàqu mooy la la wax léegi amuñu sax xam-xam amuñu xam-xam parce que ab député des ab député sax sëriñ bi mën nga nekk député président de la république bi àndoog moom muy liggéey nga nga nga nga nga nga nga nga ànd ca la muy def am na député yoo xam ne ci opposition bi lañ nekkoon am na la waaye ñu doon wote assemblée nationale yoo xam dañ koy wote parce que xam nañ ni lii président dugal ñu koy wote njëriñal réew mi la kon nañ bàyyi seen jaaxaan yi mënuñoo nax nit ñi moom na dem li ñuy wax toujours moom balaay wax na dem lijjanti ji affaire Adji Sarr ba mu leer bu doon un nit nit ku noble un nit ku am personnalité nit ku am dignité lii ñu ko jiiñ da koy dem lijjanti ba mu leer nañ mu door a ñëw jàkkaarloog sénégalais yi di wax Barthélémy Dias liñ ko wax ci Ndiaga Diouf dafa war a dem lijjanti koom leer nañ mu door a ñëw di wax ak sénégalais yi Khalifa Sall mais ñoo xamante ni nii ñëpp euh, ñen toog ca tribune ba ñëpp am ak am ak am am ak yoon problème suñu papa moom nu Habib Sy euh, Habib Sy ministre Habib Sy ak Aïda Mbodj ñooñu moom da dama damay leen a yërëm sax waaw parce que ku toll ni Habib Sy ak fi mu jaar ci réew mi bu mënee taxaw xam sart réew mi xam nan la réew di doxee waaye nag Habib moom c'est très normal ñi xam histoire sax xam nañ ni war naa mën a mel noonu moo ko Aïda Mbodj donc am na ci loo xamante nii kenn du ko bàyyi mu jàll te gis nga bëtt bëtt bi ñuy def lépp mooy yépp ñu ngi koy bàyyi xel di ko noté ñii di saaga pëlise yi ak di saaga koor yi jàpp ni yoon du leen topp yoon dina leen topp yoon mën nga fote mu bàyyi la trois mois six mois ba un wax ja nga waxoon mën nañ la cee xëy woo la parce que Ousmane Sonko bi muy woote ndajem démb mi waxul ñu toog place de l'Obélisque waxul loolu dani nañu def mobiliser wu dem génn ji Macky Sall ci pale bi euh, nu mu euh, pour pour ci pouvoir bi loolu foo ko wax ñu ci réew mi foo ko wax ñu jàpp la mais comme moom ay lobby yi kenn xamul ñoo nekk ci ginnaawam te gaayam ko séqal euh, muy police nationale ak seen ministre d'intérieur Antoine ma koy félicité di am mbégteeg moom ci contentement mooy ay intellectuel ak borom xam-xam lañ yoo xamante ni nii lépp loo xamante ni Ousmane Sonko nas na ko gaa xam nañ ko ah dem seen manifestation bi jàpp nañ ay rebelle rebelle yooyu lañ leen doon wut ci Dakar réew mënu koo taal mën tataar réew mi mën tataar réew mi parce que réew mi nit ñi fi ne ñi fi ne liñ fi liggéey seen i maam liggéey ko fi ak seen waajur ñoom liggéey seen seen ñoom liggéeyuñ ko fi ba bëgg xëy taxaw ni dañuy taal réew mi donc ku bëgg Sénégal bëgg sam réew am na neneen noo war a taxawee lu dul nii ab Ousmane Tanor Dieng na fi Abdoulaye Wade lu ne xew na fi batala joolaa pour problème yu bari am na fi pourtant opposition bi ak accéder ci loolu pour taxaw ci pour bëgg jaar fa bëgg faa taar réew mi te ñoom ñii ku mu ci doonoon nga taar réew ñun ay ay ay ay parti yu mel noonu lañ bëgg ku mel ni ay ñoom ay Djiboka ay homme d'état mais ay ñoo xamante ni yow sa intérêt bopp ay nit ñu jubadi ñoo xam def nga sa garaawaal yi ñi ñi ñiy wax ñëpp bañ ku leen jàpp rek def nañ ay crime ñii def nañ ay viol ñii sàcc nañ xaalisu réew mi bañ ku leen jàpp ñu bëgg a def seen bopp ay politiciens di santas nit ñi ak di saaga yaakaar ni loolu mooy jàll loolu du jàll pas par pas la ñuy ànd ak ñoom rek mais problème bii ñu bëgg a def bëgg a yàq senegal bëgg a yàq réew mi danañ ko toppanteeg ñoom ci démocratie ak diplomatie ba ku ci nekk la nga nekkul ci yoon dañ la ci teg la ci yoon. waaw maanaam euh, li ma fàttalaat moom mooy que euh, comme ni nga wax noonu écarter Ousmane Sonko ci élection yi loolu ba tey yàpp jàpp nga ne du doon euh, pénalité ci yéen nit ñi mere leen. daal di far vooteel nag euh, ñoom seen liste bi nga xam ne ni moom la moom mooy daw. waaw Sidi xam nga xam nga voté du du maanaam damaa dàq Macky Sall wala damaa dàq Ousmane Sonko euh, day tax nit ñi mer réew réew kenn du ko kenn du ko gérer ci noonu cest à yoon li mu wax danga koy def juum nga dàq nañ la nangul. même bu fekkente ni nii nit ñi dañoo mer ci loolo wooteel sanctionné Macky Sall wala ñu wooteel keneen mais la yoon wax moom yoon ak état ak pouvoir bokkul il faut ñu bàyyi yoon. yoon di def liggéeyam parce que yoon mënta nekk di def liggéeyam ñu ni kat yoon dafa war a jàpp Angloma Macky Sall yor réew mi daan ni kat yoon bu mu jàpp Angloma ndax Angloma sabab xarita wala Angloma man la nekkal sëriñ bi loolu buñ ko defee kon ñu tasaare yoon yoon bañ am donc bu fekkee ñoom dañu fote liste bi baaxul yoon ni leen liste bi baaxul dindi ko sëriñ bi nañ bàyyi yoon mu euh, ba pare euh, nangu la yoon wax léegi nag après li sénégalais yi def ñoom bu fekkee dañu mer loolu ba tax ñu sanctionné nu mu tëddee liste benn bokk yaakaar loolu koy moo gën mooy mooy mooy jàmm sax ci réew mi parce que nit boo defee du dul yoon Abdoulaye Wade kay bi mu fi forcé ni dafay dem élection seriñ bi nit ñi wax mu forcé dañ koo bàyyi mu dem di demee gars yi dem ci urne yi nu mu tëddee nu mu tëddee jëlee ko fa. donc ñoom am na yeneen liste yoo xamante ni nii euh, opposition lañ euh, ñoom seen liste baax nañ ñoom mbooloo mi ñu yor. ak seen euh, électorat nañ dem pousse ñooñu lu opposition kay opposition la rek ñooñu bu ñu gasee gañee majorité assemblée nationale kay bu ñu demee lañ fay wax rek lañ fay wax ñoom lañ bëgg <laughs> dañ ko am waaye nu mu tuddati euh, euh, bu ñu defee lii ñu mel la loolu yoon moom buy dal na dal rek yoon yoon la. yoon yoon yoon amul bu tekkee yoon na dal sa kaw dangay ngay nangu ni yoon na dal sa kaw yoon nag dafay dal ci kaw baadoo la dal ci kaw nitu pouvoir daw ci kaw nitu borom barke yenn yat la yat buy dal na dal ni mu war a dale ci ñëpp rek. donc loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy dëgg. Euh, euh, ci beneen laaj boo xam ne dafa jëm ci ba tey ki xam moom mooy euh, député Cheikh Abdou Bara Dolly ak digg mi ko ko wóolu ci maanaam kàddu yi mu yëkkati jëmee ko ci njiitu réew mi noo jàngatee kàddu yooyu noonu noonu ak en tant que député bi doon revendiquer ne moom mooy meilleur député de l'année noo ko jàngatee. waaw kàddu député bi maa koy ñaawlu. Euh, ginnaaw bi ñu nga xamante ni nii ñoo bokk département de Mbacké muy dëkk Touba euh, nit ku mel noonu bokk fi mu bokk dëkk fi mu dëkk kàddu yu mel noonu waroo ko wax sax en situation simple waxuma la président de la République Sénégal déjà euh, ñun ñi bokk ak moom côté département bi ñun ñëpp la gàccal parce que opposition mën nga opposé wu wax mais nga wax ci ci ci ci yara ki teggin ak xam-xam mais xam nga di wax loo xamante ni nii yow ñi ngi koy wax sax kilifa yi xamante ni nii ñoo dëkk ca Touba sax buñ la déggee ngay wax wax ci benn loolu sëriñ bi dañ lay xeeb nga ni da ngay da nga am sant woo xam ni moom ngay wuyoo mu nekk Mbàkke donc ndegam ñi nga xamante ne nii euh, wuyoo wuñ Mbàkke sax ada ah, dañ rafetal seen i kàddu waxuma laa koo xam ni nee nga sant wi ngay sant Mbàkke la donc kon euh, am na ci loo loo loolu lu ñu ñaawlu la lu ñu ñaawlu la même bu dul toon li ko dig woo sax maanaam buñ ko wowutoon sax maanaam euh, lu ñuy metti la di ko ñaawlu donc euh, fii nag kenn ñaanul bëggul kenn te kenn waaye nag euh, ci pays droit lañ ne ay saaga nit ñi ak ak wax bu bon am na wax yoo xamante ni moo jël nit ba jël paaka jam ko nit moo yem képp donc sa dafa dafa ñaaw ci kilifa dafa ñaaw tam ci ay kàddu donc loolu lu ñu ñaawlu la rafetlu wuñ ko di itam wax rek nii justice euh, Sénégal ak euh, police nationale bu Sénégal donc nekk luñ fi ma sàmm nekk luñ ci ma dem ba man mii tey bu ma ko waxoon nu mu tuddati la même chose fan yee passé gis nga li fi dal Bougangeli fan yii passé gis nga li fi dal député yooyu ci wàllu euh, passeport passeport yi te ci ah ci camp présidentiel bi lañ bokk <laughs> mais yoon dafa def dafa def liggéeyam kon boo fi di waxee leneen loo xam ci ni itam wax dëgg yàlla yoon da laa war a topp tam yoon da laa war a topp corrigé la donc li nga wax tam ni nee na moom mooy député maire année donc loolu kenn du ko wax da ngay bàyyi ba waxal la ko sa bopp xam nga maa nekk nangam moom dangay ngay bàyyi bañ ni la yow yaa ko doon xam nga mën ngay bàkku di wax fekk yow yow la ngay wax sax nit ñi dañ la dañ la dañ la dañ la xeeb yow xam nga nekk assemblée bee di di di def yenn jëfin donc bu teyee nga sol lu kenn xamul lu mu doon donc yooyu yooyu rafetul daal yooyu rafetul ci côté bi mu bokk ñun sax ñun wax dëgg yàlla muy département Mbacké mu leer nañu député département bi la donc lu lu ñu ñaawlu la lu ñu ñaawlu la moo tax nit ñi bu ñuy fal war nañu xool bu baax critères yi ñuy xool pour far ci nit mais jël nit rek def ko maire wala nga jël nit def ko député donc nit ku yori tànk ki loxo nga nga nga fal rek mais est ce que borom borom xel la borom xalaat boo xamante ni par exemple li mu ko def. am na loo xam te mën na ko incarné ci ay valeur ak i dignité parce que yooyu da ci am solo. Euh, jërëjëf. donc maa ngi lay sant di la gërëm di kontaan bu baax ci euh, invité bi nga ma invité ci site bu mag bi nga xamante ne nii àdduna bépp koy déglu Euh, donc am na yeneen waxtaan lu ñu war a waxtaanee laaj nga ma ko ci commune de département bi ak liste yi donc loolu beneen waxtaan lay doon après buñ ci buñ ci demee dinaa la ci wax lan moo ci sama xalaat ak lan moo ci sama gis-gis. Euh, jërëjëf euh, Omar maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax sunu waxtaan dina gën a yaatu ci yeneen jotaay ci seen site vingt pro. ci seen site 28 pro. ci seen site.